maanaam am na ba bu demaatee ci état bu ñaareel bi fii nag moo moo ci xaw a gën a waaw fii moom moo xaw a gën a compliqué tuuti sëñ Tuubaa su dee ñaan yàlla du wax allahu maanaam su su danañ gis ci sindi di yàllaahu bil Mustafa sindi di yàllaahu loolu la mooy njëlbeen nga waaye mujj daan la danaan danaan danaan danaan yaa rabbana lu ko waral dafa gis ne kat mag ñi nga xam ne dañ ne dañ daa wo wo yàlla ci xadaratul haahud maanaam léegi ñoom te amoon na maanaam suñu nopp tum nañ ko maanaam du ñoom te ci ci waxin la maanaam léegi ndax soo woowee yàlla ci xadaratul haahud bu la wuyoo yow da nga ko dul nekk da ngay absenté maanaam léegi bala la su su su la wuyoo bu dikkee da lay far ba noppi teew moom nga xam ne maanaam léegi ci yow doo fa nekkati. nga nga xam ne li ñuy tuddee waxdatu shuhud su boobaa mooy am waxuma nag waxdatu wujud waxdatu wujud moom léegi tubaab yi nga xam ne ñoom orientaliste yi nga xam ne ñoom ñoom seen seen aada ñoom ñoo xam loolu ñoom maanaam tubaab yi seen diine moo xamoon waxdatu wujud nga xamante ne mooy ak noonu ci animisme lu animisme sax waxdatu wujud rek la tubaab yi ñu bëgg a woyofal naan animisme waaye dara waxdatu wujud rek la maanaam yàlla ak monde bi penn la taqali ko wuñ loolu loolu tubaab yi ak sunu maam yi loolu gëmoon waaye lislaam moom waxul loola suufenke yi lislaam yi waxuñu loolu ñoom li ñu wax mooy waxdatu shuhud mooy sa jëmm jëpp dem ba almarayal wax bi yi nga xam ne suñu doom buy buy buy fenkat ci monde bi sa jëmm ji man koo dikku fiir yëpp décoté ko man a xam ne xam jàngat yëpp loolu mooy wax da tu suur waaye am na na problème xalaaj moomu bi ñu ko laajee ne ko ayna la moo waxoon ne kayfa yusalu bi ayna wax wada si ayyanal ayna yàlla mooy si ko laaj fu mu nekk ndax moom barab ci moom yàlla moo ko bind kon moom yàlla ko niw kon ci barab sëñ bi ne nekat kon léegi xadratu rubo bi bi kon foofu foofu la fu lañu war a woo yàlla ndax yow ab jaam nga su jënt bi bi sa talam ne woon a kaana lahu wala chama suñu borom moom xadratu uluhiyya amul alaaka ak keneen maanaam yàlla man nekkoon na fi te dara ñëw fi waaye nag ar rabb moom faaw mu am lu mu yilif lu muy saytu ar rabb mooy mooy am lu mu yilif ba noppi di ko saytu di di ko topp putoo loola mu mu mu ci mu yarab kon nag soo wooyee woo suñu borom ci xadaratul boobu yeeg ko kon yow léegi am na alaaxa bi relation bu aw seen seen diggante foofu mu foofu bu ñu xoolee sema bi maanaam na relation bi bi aw diggante maanaam suñu diggante ak moom rabbu relation bi aw digganteem ak al alxaadim te mooy xalifaam bi mooy nit ki nga xam ne daa gëm ne moo fi nekk kal suñu borom mooy alxakimiya yàlla mooy atte lu ko soob ne la defal ma nangam nangama dagan nangam mu haram kooku yow kon da ngaa war a dégg ndigal rek def ko bu relation bi bu jógee ci xaadim bi jëm ci arab bu ki fi nekkal yàlla bu jógee ci ci moom jëm ci ci suñu borom mooy al-ubudiyya yow da ngaa war a nangu ab dogalam suñu borom tey misaal tey bu bu bu suñu borom ne jigéen ñi dee leen muuru lu mu tàng tàng tàng adduna mënut a dem a dem a dem ba muuraay di rey kenn yàlla mi mi moom adduna def ab jantam di ko tàngal ak a seddal maanaam léegi moo la digal ne ne la muural te kat du la teg loo xam ne mënoo ko kon moom léegi mu mu mu muuraay gi moom du dem mukk ndax suñu borom fa mu fa mu tege woon muuraay foofa bokk na ci barab yi gën a tàng ci adduna bi. kon moom léegi yow li li la war yow moo ci ci mooy xaadim bi mooy di jëfe ndigal moo boo yéegi waaye nag ci moo boo yéeg googu day yéeg ci xitma bay nekk nekk la la la moo booda ci moo booda mooy bi bi ngay jëf ji day mujj dootoo ko yëg ab coona dootu ci am waaye joo xam ne dafa fatam ma ma julli ba nga xam ne bu julli day neex ci moom kooka mooy al booda léegi alaaka bi sunu boroom ak monde bi bu bu jógee ci kaw maa jëm ci suuf suñu borom relation ak monde bi mooy lan mooy moo koy jox al moo koy jox ab dund alqayumiya ci atome yi ne ci adduna bi xam ne moo composé monde bi léegi suñu borom moo koy jox ak dund xam nga jant bi maanaa léegi tout scientifique yi dem dem nañ ba ba gis ne maanaa léegi nucléaire la maanaam nga nga xam ne li tax takk-takkam lii du ba tey fayagul mooy nucléaire moom léegi day dund waaye nucléaire bi xam nañ ne kat maanaa léegi da dana jeex ndax léegi matière dañoo wax ne lu maanaa saa bu bu sànnee énergie bay dikkaat bay ba énergie ba jeex bay dikkaat di soppalikuwaat énergie dana ca manqué dara ñu ne kon léegi jant bi dana mujj géem la nga xam ne moo def ca jant ba la koy tàngal ba ba tey jii loola mooy mooy yàlla alxayuum yaa ngoog xayu alxayuum mooy ko xam ne mooy jox waa ji élément yi nga xam ne moo ko fi taxane bu jógee ci ci kaw nu bi jëm ci kaw monde bi jëm ci suñu borom maanaam léegi relation moom moom mooy lan mooy jaamu ko yàlla su attee monde bi moom day nangu maanaam fi ñu toll nun nit doomu aadama mooy mu yàlla muus mi du ko mooy sindax bi du ko mooy picc mi du ko mooy su matière yi du ko du mu yàlla waaye nun nit nun ñi am am xel ñooy mooy yàlla waaye moom malaaka ak yi ci des yëpp ñoom duñ mu yàlla léegi nag yow bu ñëwee fii nag ci xaadim relation am ak monde bi xaadim relation ak monde bi mooy dundal ko taamir seetlul waaw noonu Copenhagen sommet boobu nga xam ne ci climat bi Kyoto lañ ko defoon benn bi Copenhagen xaw ma ci ginnaaw rek xaw ma xaw ma am na dëkk bu ñu bu ñu ko defoon maanaam léegi nga xam ne kii climat baa ngi mi ngi ngi yàqu tàngoor yu ëpp na loola bu doon ay ay xuddaama fi nekk ñoo xam ne dañ fee nekk yàlla nga xamante ne li ñuy li ñuy consommer lépp du yàq ci ci ci ci environnement bi dara kon léegi kon sommet yooyu kon moom léegi duñ ko am misaal sëñ Massamba Mbacke danaa ci joxe misaal ma ne jóge na fii jëm Ndakaaru ba ci tefes ga mu wax seen soxna ne ko wàcceel wutal ma am ndox ci géej gi mu wutal ko am ndox mu jël ci la ko sopp daal ne ko delawaatal ma ko ca ca ndox ma ma ne lu ko waral sëñ Massamba en tant que ab xaadim sëñ da yàq ndox. xadis ne ne woon nañu su soo doon jàpp ci ak tefes suñoo yàq ndox ma lu ko waral maanaam ci yow ginnaaw yow da nga fee nekkal suñu borom ak yàq moom suñu borom nanguwu ko aw xob sax aw aw xob sax ci ak garab ab xaadim suñu ko dagg ci ak garab neem soxlawu ko maanaam bu ci amul aajo suñu ko dagg nga xamante ne kon nun ñëpp kon suñ suñu nekkoon ay ay ay xuddaam lillahi taala di ko liggéeyal ko kon nuñ environnement bi day baax du yàqu waaye nag loola la koy may ci xaadim mooy même buy jàng iqra bis bismi rabbika moom lay doon maanaam jàngaloo wuñ ko jàngaloo wuñ ko ne ko nangam yàlla ni wala jàngal feq jàngal médecine déet dala jàngal rek loo mën a jàng yow ki nga xam ne da nga maa da dangaa jël engagement pour pour liggéeyal ma yow mi xaadim jàngal lépp lu lu lu lu ma dimbale ci liggéey bi soo demee maanaam ca Perse mu Iran maanaam léegi science nucléaire ñu ngi koy jàng ngir lan loola saa suñ ca amee lañ ca soxla dëgg-dëgg toit bi kon dañ leen wekk wow maanaam suñu boom ne woon na ngeen préparé li yéefar yi lu ngeen mën ci doole loola la ku ci kon ab xaadim moom kon léegi lépp la war a jàng waaye iqra bi bismi rabbika rek la soxla jàngal ngir yàlla jàngal ngir liggéeyal ci ci ci ci ci ci ci maanaam ci maanaam suñu borom kon loola ku ku ci kon boo ko tënkee kon loola kon mooy al xitma xitma kon nag égal al ibada ndaw si soxna si nga xam ne ma nga ci ci waañ wa di defar café gaag yooya bu dee ma ngi ci liggéey ma ngi ci jublu liggéeyal borom bi loola kon day moom mi ngi ci jaamu yàlla gu mat sëkk caméraman bi bi tax ni nit ñi di gis li ñuy def ak li ak di dégg li ñuy wax su dee ma ngi ca yéene liggéeyal yàlla mi ngi ci jaamu yàlla gu mat sëkk nga xamante ne Sëñ Tuubaa kon léegi dafay génne jàppee ne jaamu yàlla mooy wérd wala wala yurub téere wala ne ca tool ya de jaamu yàlla bureau ba ak tool ya ak kurus ga ak lépp ndeem ngir yàlla la ndeem fa nga nekk yow mënoo faa ñàkk ministre ba ak moo moo xam teer ba moo xam keneen waaye fam nekk moom mu yàpp ne yàlla da ko faa teg ngir mu liggéeyal fa su fa suñu borom kooka kon moom léegi ab xaadim la nañ ca Baxdaad benn waaye boo xamante ne am njaayeen bu bu romb ci ci marché bi xelam nekk ci beñe mu mu naan ah man de man de yàlla beñe ñi la bëgg benn waaye boo xam ne nii aw yenoon nu nuwaan la ba bari jindi woo ko ne ne ko suñ bi xaar ma ñëw mu toog mu mu def limit def ba noppi daal di jóg ne ne ne ko nan dem daal di daal di dugg ci ab foo xamante ne day jaay beñe jëndal ko ko ko fa beñe yóbbu ko ba ca àll mu ne ko xa- xanaa du lii nga soxla woon waaye ne ko ah yow noo noo mën a xamee lii ba noppi di ne fii mu ne ko sunu boom moo ma teg fii di nga fi liggéeyloo ma ne waaw su ko sunu boom liggéeyu lu lu doon foofee ne ko nekkal ab bari jindi foofee waajooro kon ndax waajo kon dana ko ko ko fa mën mën romb ba ba gagam boobee mu mu mu mu mu mën ko ko ko dintil waaje gagam boobee su ko yóbbale woon mën naa ñinki ba ñaan képp la bëgg képp di ko di di ko di ko joytu su su ko su ko yàlla joxu toon beña mën naa am xelam dana dem ci lu ëpp loola kon léegi ko ne yow fi nga nekk di maanaam ne- nekkal fa yàlla xamal ne yàlla moo la fa teg moo xam la tax mu teg teg teg la fa soo soo fe condition yeew soo ko matalee sëkk keneen gënal tu la xanaa mu def lu mu mu- mu gën laa se se- sellalal ca na muy ci ci- ci rol ba muy mu mu mu suyee waaye kenn mënta ëppale moroomam ci dara lu may ne da ko gën la la sellal rek. nataal bii moom moo gën a jafe tuuti ndax dalay wan xam nga ci ci ci murit gi am na ñoo xamante ne ay ay obad ci rek lañ ay obad obad ñoo xam ne ñoom dañuy jaamu yàlla rek rek rek nga xam ne daal du du ñuy daal ay suuf yi ñoom duñu ay su ay suuf yanke duñ tudd jëmm ndax di di Sénégal mi ñuy dégg dafa xat boo ne woon jëmm ab abid la jëmm suuf yanke la dañu yaakaar ne kon da ngaa wàññi wala ngaa yokk fekk ne waaye am na ñoo xam ne ci daal bu ñu bëggee classifier gaa yi do- do- doxin yu wute yi nga xam ne sëñ Touba en tant que mu mu mu jëddit ku yeesal diine koo xamante ne dafay boole yi yi nga xamante ne moom la fi dundin yi nga xam ne moom la fi kàngam yi dundoon lislaam moo bu mu boole yëpp taxañ teg ku ku ñëw nun maanaa médicament boo xam ne di diggoon na ak yow sa tempérament digg na di di diggoon ak moom mooy la te nga jaar fii xam nga ku mel ne s- s- s- sëñ euh, kenn rek kenn ci ci ci gaa yi daa waxoon ne moom day sëñ Tuubaa ba mu ba ba mu jubbaloo ci moom sëñ bi dana ko woon nekkal ci sunna moom moom sunna la ko doxla woon nga nga nga nga xamante ne maanaam moom léegi kon jumbul kon moom li nga xam ne moom la école yii di wax islamiste yi tey naan sunna sunna kon jumbul kon moom su gisoon sa sa sëriñ boobu kon ñoom léegi dana leen ma mat ab sëriñ keneen dikk ne ko man de am na ci koo xam ne sax moom mën na ko tudd moom sa sama maam la sëñ mu mu sëb si la ba mu ñëwee sa sa sëñ bi da nekkoon ci loo nekkoon mu ne ko xanaa di dundee suuna tey dundal sunna sëñ bi ne ko nekkal ci loolu su su bés pencee maay sa seede yaakaar naa su ko islamiste yi gisoon moom dara danañ mën a naan ak moom mu doon seenu ab sëriñ mu mu am ñeen ñoo xamante ne ay suufiyanke lañ nga indi su andee maam Cerno Birahim nga xam ne sëñ sëñ bi ne woon ne woon na moom boole na ashariatu wal xaqiqa kon kooku kon moom da nga daal di mën a fekk ci ci mu ci ci ci moom wala ngoo xam ne ab suufiyanke boo boo marié fii da dana ko dana fa mën a naane. kon moo tax fii kon ñu ñu ñu gis fi almahbud almahdum almurabbi almahbud mooy yàlla maxdum mooy yonent bi bi alayhi salaatu salaam al al al almurabbi mooy ki ki nga xam ne moo fi wut tu yonent bi bi alayhi salaatu salaam moo ko doon ci ci baatin almahbud relation am ak alabid ki nga xam ne moom léegi dafa bëgg a jaam mu mu mu yàlla rek moom moom daal jaam mu mu mu yàlla rek la la la la bëgg a def loolu nag ab concept la. jërul leeral concept la xam ne moom ñëppay ñëppay jaamu yàlla waaye moom léegi moom léegi def daal li fekk wax rek moom ci la yem kooka relation ak kii mooy da ko da koy tërbiya bu dee nag relation bi ki maanaam almaxduum wala al murabbi ci alxaadim ki nga xam ne da da dafay bëgg a wóotu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom relation ak. al mu murabbi lan la muy al himma himma ne woon naa sëñ Tuubaa mas naa woote njaareem maanaam sëñ Malick Ndiaye la la wooloon ak sëñ Bay Saar guddi booba suuf suuf sedd na mu daal mu leen dem leen woolal ma mbooloo mi ñu ñu woote penc mi fees dal sëñ bi génn daal di nuyoo ñetti yoon daal di daal di ne sëñ ma Masamba ma Masamba ñëpp ñëw nañu sëñ Masamba ne ko jóg da ñëw nañ sëñ bi ne ko ko waaw ju jëpp pour rek ka mën a ñëw jëpp mooy ñu ëpp daal di ne daal di ne yitte yitte yitte bismillah mu jeex tàkk daal di ne ne wëriñ léegi kon yitte moom yaa koy firil sa bopp sëñ bi moom du la ko firil waaye soo soo demee ci Cheikh Abdou Khadir Jeylaani danaa la yàlla koy ko yàlla dolli ngërëm danaa la yitte mooy sa xol bi mul ko ak malakut ba bañ cee toq doo gis dara dara lu lu ma yàlla lu ko moom moom doy na maanaam nga xam ne yow sa xol yow amatoo amatoo lenn loo soxla lu dul yàlla sëñ sëñ Tuubaa ne woon na asamaaw lu mu gën a kawe ba ci suuf lu lu mu gën a suufee ku fi bëgg lenn lu dul ngir yàlla foofu sëñ Tuubaa indi na fa leeral bassin riis ay étage ak terrasse passeroo yëpp baax na bu dee da nga koo bëgg def ko jumtukaay ngir liggéeyal yàlla baax na kay loo fi bëgg lu dul ngir yàlla loola kon bëgg adduna la suñu waa kon moom leeral na ko ma nga ca mañ moo leeral na kon xam bëgg adduna kon du du du firi bëgg maanaa léegi jumtukaay xul man man man xarama suñu doom lu fi lu fi gën rek nun la ko jox nun ñi ko gëm su su àjjanaa nun dong la koy jox yàlla ñu ca bokk. kon moom léegi bu ndikkaatee fii relation bi diggante almahbud almahdum almurabbi ak alabdu alxatim seen relation lan lay doon kii moom ci xaadim la woon kii nag léegi xaadim la dafa àgg relation bi mooy bu dee ci al abdu la wala alxadim jëm ci al almaabudu al almaxdum wala almurabbi loola mooy almahabba da koy sopp ki nga xam ne dafa day jaamu yàlla kese moom ci fekk rek wala ki nga xam ne dafa bëgg wuutu yàlla ci ci kaw suuf ñooñu ñooñu ñëpp ñoom maanaa léegi seen seen relation ak borom bi ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy dañ koy sopp su mag ñi nee ñu suñ borom dafa xool sëñ Tuubaa dafa xool ci xool yëpp xoolub sëñ Tuubaa gën ko cee sopp moo tax mu def ko muy xalifatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci kaw suuf loolu maanaam kon maxaba kon moom ni ko sëñ Fallu waxee woon tuubaa li abdin muridin saadiqin lahuma bi ximatin aw bi xobbin aw aw hadiyatin mu ne kon man bi xobbin ndax bi maanaam cofeel gi mooy indi liggéeyal leen mu mooy ci ci indi it jox leen kon kon mu ne moom bi xobbin kon léegi mahabba mooy lay jox moom mooy war a dox diggante xaddim bi wala abdu bi ak boroomam ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy tax ba lépp lu mu ko defee rek dootu ci yëg ab coono kon léegi bu dee ci kaw almahbudu almahdum almurabbi jëme ci ci abdu xaddim mooy tarqiya da koy yéegal maanaam kat ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam sëñ Tuubaa nee woon na mag ñi seen gàllankooroon moo doon dañoo yaakaaroon ne ne yonent bi mënu mënut a tërbiye keneen ginnaawam loolu njumte la maanaam maanaam daal gàllankoor mag ñi la sëñ bi nag moom ne man kat ginnaaw xamoon naa ne su su doon dong suuf si ma xam ne yonent bi ba ba salaam ci la doon dëgg asamaa aussi la doon xool ak biddew yi kon loolu kon doy na ma kon sëñ Tuubaa xam ne ne yonent bi salaam ruu la moo tax mu ne yaquudu fi zaahiri wal baatini man ataahu lillahi fi kulli zaman yonent bi bi ko bëti bopp yi di gis ma ma doon tërbiyee ñu ne ko gëm bi mu làqoo suñuy bëti bopp bëti xol yi di ko gis mi ngi mi ngi tërbiyee ñi ko gëm kon moom kon moom daal di kii kon nag soo soo xoolee na ci ne kon alabdu ak alabid alxaadim alabdu alxadim ñoom relation bi benn la maanaam léegi day jóge fii jóge fii boo xoolee da ngay gis ne alabid bi moom day àgg ci borom bi habit maanaam maanaam daa léegi ci ci léegi soo soo àggee ci borom bi ñu ngi koy tuddee al wusul maanaam al habit bu àggee ci borom wusul lañ koy tuddee bu dee nag ci xaadim moom ñu ngi koy tuddee al wisaal wisaal mooy wusul mooy ñu ne kat yow foo jëm ndakaaru ñu ne àgg nga naa ndakaaru de tënkee nga àgg wala foo àgg wisaal nag mooy nga ci nga dugg ci ci biir palais ba ba noppi di di wër amoo fa frontière. loolu moom mooy wisaal léegi nag su su suñu boolee yett yëpp ñetti tomb yi buñ ko boolee loola mooy alxidmatu al ibada gis nga fi fi kon maanaam maanaam waaye ji nga xam ne ab ab ab ab islamiste rek la da dana fi gis boppam ne moom day moom abid rek la kon moom léegi moom diggante moom ak mabut bi bu jógee ci kaw jëm fi suuf ma maanaam léegi gi yàlla yonent bi ñoo ko yëkkati jëme ko ci kaw ñoo koy tërbiya bu dee maanaam moom relation ak ak ñoom mooy yitte kemtulaay yitteem nu nu mu toll ni lay feese bu dee nag bu bu bu dee fii nga xamante ne moom ca Abdu Xadim la ak ba tey maxdum bi maanaam léegi mahabba moom mu su awee si seen diggante tarqiya da daal di am yaakaar naa islamiste yi soo demee ci Ibnu Taymi rahimullah ca madaari ju saalikin ca baabul firaasa da nga gis ne kat Ibnu Taymiya moom léegi àggoon na ci mahabba suñu doom tarqiya ko ba nga ba nga xam ne day gis lu ñëw a gudd kon islamiste bi dana dana mën a gis boppam keneen su fenk bi donc mën a gis boppam loolu lépp nag xidma la kon mooy xidma daal mooy yëngatu boo yëngatu ak son booy def ne ne woon naa mooy kullu xarakatin faa'ila qasdiyatu tabia tum naa kullu xarakatin faa'ila saatu qiima maanawiya qasdiyatu tabia tu adda fil xitaabil insaani tijaahal kawni wal xayaat shukran lillahi fii aryaxiyati l ubudati l xaqa loola maanaam bépp acte boo def sa diggante ak ak yàlla jublu ca liggéeyal sunu boroom médecin nga ci jàng ci bureau ba ab ab commerçant nga commerçant ba ne ne ca marché ba bañ a jaay marchandise mu bon pharmacien ba bañ a jaay marchandise mu bon. médecin ba jàng ba ba xam wéri digga su ko xamul ne ne ne xawuma ko yooyee kenn ku ne daal nga xam ne yow fa nga nekk yaa yàlla nga ci nga fa nekkal bul ñee sa morom bu dee yaa ngay def la la war a ca foofa kon yaakaar naa kon ci tënk kon kon asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu tey di di ñaan nag li ñu waroon jëkkee mooy sëñ Sidul Muxtaar sëñ Cheikh Mati lay yàlla yàggal ko fi lool lool te dëgëral ko ak i rakkam ak i doomam ak sa taalib bi yëpp ak fu ab jullit mën di nekk xalifa yi sénéraux yi yi ci réew mi tiyaan yaag xaadir yaag ak fu mën di doon rek ak ci ak nag ñi tul tu réew mi su doon boo am dëgëral ko